yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunuy sidit yëngootina bu ñi jóg di way sang mbokk internet sans TV ñoo ngi leen di gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak ñun ci Magal Touba 2021. Ah, tey nag comme ni ñu ko defee dañu sol suñu daal rek dem seeti ki nga xamante ni yaakaar naa kenn dootu ko présenté fi nga xamante moom moo di réewum Sénégal muy kan Askia Touré le ministre boo xamante ni ah, conseiller la am diggante kóllëre ak ki nga xamante ni moom moo di le président Macky Sall daan ci ñëw ak ki nga xamante ni moom moo di ah, Serigne Saliou mu baax mi am diggante ak ki nga xamante ni moom moo di soxnaam baax si nga xam ni moom moo toog fële muy ñetti point yoo xamante ni rek tey bu ci nekk rek dinañ ci waxtaan tibb ci ak màggal gi nga xamante ni à chaque fois rek moom màggalam day bokk ci màggal yi nga xamante ni day def à la une des pages web euh, sëñ Askia ñu ngi lay nuyu di la ziar di dalal bu baax a baax. Euh, ñu ngi leen di fay. di wax alhamdulilahi rabbu samawati wal ard alhamdulilahi rabbul masribi wal maghrib alhamdulilah wante alhamdulilah ala kulli xaal Euh, ñu ngi gërëm yàlla bi mi bi ñu yàlla féetale ak Serigne Saliou ñu gërëmaat yàlla it nag ba ñi ma jege ñëpp xam ni awma ma lenn lenn lenn si àdduna lu ma bëgg lu Serigne Saliou di gërëm it nag sama soxna su baax si nga xam ni fi ma ko teg rek la toog. ne ko toogal rek li ma sëñ Saliou defoon li nga bëgg lépp dina la fekk fi nga toog mooy dama ne ko toogal li nga bëgg lépp mi ngi ko fay fekk dana fa naan noonu moom naa naan illa laay allaay wa umri taq balaa kon da leen yàllaaw dafa mel ni man ko waxal <laughs> ah, weer wii dafa mel ni ku yàlla dimbale ba nga fekkee ko warula waroo bëggaat leneen ci àdduna mm-hmm. ndax kat ki nga xam ni bi nga koy yebal ay gaalu fitna ma ngi gërëm yàlla ci résultat ba mu am dégg naa Cheikh Cheikh Bamba wax démb ne ku fi yàlla dimbale rek dañuy jël ci ndimbal yàlla googu te nit ka ndimbal gi ko yàlla dimbale jox la wante sëñ Bamba rek la ñu xottil mbubb moo xam ne rasulullah salaas moo ko moom te daloo ko mu jox ko ko directement. loolu loolu ñu rek ñoo ko am. ilham wajxal rek lay wax moom waxul rabbana de naan laa tajal naa fitnatan yooyu waxul de waxul naa rabbana laa tuwaxis naa de da koy dégg rek ndax du benn ndax ka yemul ak nit ñi nu ñu nekkee nee naa démb laalu alim mi maa yesa loolu ku yàlla jàngal ba ne doy na bokkul ak kuy jàng ndax ki nga xam ne lépp da koy dikkal ki nga xam ni moom bokkul ak nit ñi fu mu jóge ki nga xam ne jiitu na fi nit ñi ki nga xam ni xibaaram xibaaram ah yonti yonente bu wàcc nañu ndokkeele ko waajuram bi bi mu ñëw si àdduna mu xaw a niroog la ñuy wax loolu ci keroog ba Seydina Muhammad di gane si àdduna ba mu mu weer balaa mu koy gane si yi ci xewoon yëpp yëpp tàbbi na ci sëriñ bi. limaam kenn amu ko te keneen du ko amaat raf an keneen dootu ko amaat dootul amaat ci àdduna kon yàlla su la dimbalee ba si njabootam njaar la ci sëriñ Saliou sama gu baax googu. xam ni nee na ma lii ma moo ko def. moo ko def de. moo ko def ci lu wér a wér a leen leer. leer na ñëpp. kon fekkeen yàlla dafa dogal ah waajuru góor gu baax googu dimbali ñu ci mbaaxam ba ñu mën a tàbbi ci bisam bi nii ñun daal dañuy gërëm yàlla gërëm goo xam ne amul tàmbali amul amul amul fu mu yem. mu mel ni màggal nag lañ ca wax dañ ne. la gën a kawe ba la gën a tuuti. man daal dinaa góorgóorlu ci gëléem ba mu gën a tuuti de pitax am na nag de wax ngeen ko de xëy na picc ngeen amul mais soxna Ngoy faaw nga génn picc ndax picc gën a tuuti petax gëléem am na daal ba picc fexeel picc génn su ko defee su ko defee euh, lii nag euh, euh, muy seet cant sant mooy nga liggéey ba weer bi dee ñu ne tey le premier da war a fayu nga naan soxna yi toog leen yow loo bëgg ma jëndal la yow lu bëgg ma defal la xale yi loo bëgg loolu lañu sëriñ Tuubaa defal dañoo toll ci weer ci weer woo xam ne ci jamono ji xam bis dañuy fayeeku ci fayeeku rek la ñu nekk kon loo ci def rek baax na ndax kat neen laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun ah lépp baax na lépp neex na kon nañu fexee rek mu sax te dakk kookoy sëriñ Bamba ah ñu am nag yéene ànd koog samay mbokk kii nag sama dooma sama digganteeg moom yaa ayyuhal la rek ak lazina amunu macha allah ah suñu diggante noonu rek la demee kee nag sëñ Mbàkke Murid ma sama dooma moom moom moom li mu bëgg lépp man la war moom mii li mu lépp man la war amaana sax mat na ndax yegg na ci léppam léppam jàppandi xëy na da doon xaar màggal gi weesu rek yàlla na ko yàlla def ah, day doo ko yegg si su ko defee ah, kii sama dooma ndax sañ Fallou ah, ba mu ma tëriloo Faatiya ma koy rekk rek mu naan bu ko rekk waay boobu xam naa yaxa ñëwagul sax yooyu yëpp lu yàgg la yoo xam ni wala bu dafa ma fay ko ndax soxna mbar daanaka féete soxna si la euh, euh, sëñ sooy bu coono gi mu sonn si ñun tax na ma féetale soxna si soxna soxna soxna baali sama rakk jooju nga xam ni ba sa si man rek te rëkku ma benn yoon moom mii nag sëñ Cheikh say daf ma am yu ba am solo yu mag ci moom moo tax ma téye ko nii ginnaaw Serigne Sall dafa am yeneen yëf yoo xam ni moom la war ma ne ko bàyyi ma tegoo ko mooy mooy sama diggante ak sëñ ko si man kii xam na loolu foo ko gestu si man mm-hmm. donc dañuy wax ne mënoo mm-hmm. ma amari ndam tëx ba xaw ma ma lan yooyu mënoo ko waxal sa bopp di nekk si ñun ndax nag ah, ah, ah, xasida gi bi ko suñ bi bindee ah ni ngeen koy jànge baax na de ndax dégg mm-hmm. ah ndax dégg googu yàlla dafa am ñu mu ko jagleele gis nga gis nga ñun waa Mbakol yi ñun amuñu mënuñu fecc sabar mënuñu tëgg wante mën nañoo way mën nañoo jàng mën ñu ndax si loolu lañ ñu tàggat li Cheikh Abdou di wax si Thiéyeen ndigal loolu sëñ bi Mbakol rek la ko fekk moo Modou Asta Touré Masara Sata bintu doon Baba Dikka Xari Njaay moo leen meññi ñoom ñëpp indi xalilu indi maajon indi yooyu yëpp ñu lañ wax penku penku yi te boobu léegi ñooy xalifa nag ba si sëñ Muntaxa Binta Jaxate bi ñooy ñooy xalifa yi de ba tey ñooy xalifa kon jar naa bàyyi xel de wala yàlla nañ fi yàgg rek sëñ Muntaxa nag ñu jiital nag suñu euh, yéene ak suñu ñaan ci sëñ Muntaxa moom la suñu sag la moom yëkkate ñu ne kaweel nañu sóoral nañu këlal nañu naanal nañu màndil nañu ah lii xew barki démb lu tuuti la ci li mu mën nee nañu soo soo jëlee gis nga gis nga boobu yàlla dox ci alquran ci liir yu mel nii rek la sëñ bi dañoo dimbale ba ñu nekk benn ndax murit moom loo ko tooñ tooñ soo nekk sëñ Tuubaa soo ko soo dee sëñ Tuubaa rek moom la ko def te dina la jigéen ngir sëriñ Tuubaa ñun yàlla dimbale ñu si eh, iqoo jàppoo goog siyoo goog safoo goog sëñ Muntaxaa gi su fa yàggee dina baax su ñun de ndax moom xam na li muy def de daa ah, xam na li muy def de ndax koo xam ni <coughs> ah, ah, da ngay tegtaloo sëriñ bi ndax soo seeroo mun lépp sëriñ bee ko moom lépp sëriñ bi rek la loolu ñun lay waxal kon ñun lay waxal kon màggal gi yàlla lépp nekk sëriñ bi doon sëriñ bi ñu nit ñu doon lépp sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaleykum salaam. safar terooti na ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang be safar terooti sunu deret yëngooti na sunuy sidit yëngooti na bu. ñi jóg di way sang be